kon lii mooy addi yi nga xam ne moom la Serigne Habibou moom Serigne Fallou mu jiite Touba ca kanam andi mu toll ci juróom-ñaari nag ak téeméeri juróomi nag ak téeméeri saakoy ceeb muy ñetti ton muy addee joo xam ne yebal na mbooloo mi baaxoo yebal ci bis yi mooy Serigne Abdoul Ahad mii nga xam ne moo jiite euh, mbooloo mi nga xam ne ñoom la Serigne Habibou yebal mu ñëw indi ko fii jaarale addiyam ci Serigne Hamsatu moom Serigne Sohaybu waaye Serigne bi léeg aadaam mooy dafa wax ne bis bi mbooleem lu fi ñëw bu mu fi taa nañ ko jox sëñ Yuusu mu dugg ci biir liggéey bi jëkk dugal addiyee boppam nga xam ne lu fi taa euh, lu fi taa rek lu fi ñëw rek lu fi taa da koy dellowaat kon addiyee ji sëriñ bi wax na ne bu ñu ko sax wàccee nañ ko jawalal ca daara ja mu dugg ci biir liggéey bi kon addiyee ji agsi na yaakaar waaye maa ngi nuyu si seen bi. waaw day am mboolem waa ko parce que tamit ñëpp ñoom nekk fii. waaw ko parce que ñoom daal ci si yéen. ñu ñëwoon ci seeyal si di andi si pàkkee ba Touba si kanam. bis bu mag looy ji si am wax am. te def leen ngeen di jëriñ def ci kanam liggéey bi te loolu itam dañuy dëw sëñ Tuubaa ndax xasida sëñ Tuubaa moo leen jëw ndax ñu nga wax ci biir yàgg na lool danga xàmmee rek tàmbalee jaxasoo yow waaye boobu ak léegi ñu mas a xam ci yow ñu mooy taxawaay bi bëgg xasida ba jiir boo xam ne jéggi na dara koo toll jàng xasida ak bind xasida dañ mas a xam ci yow te booba jamono ji wuute na mhm. booba ku ca ne sëñ Tuubaa dong la ca bàyyi mhm. te booba nga ca nekkoon bu mhm. sëñ Tuubaa fekkal la ci boppam loolu mën nañ ko seet ndax fekk nañ ci lu bare bare daanañ mokkal ay fekk yu xasida yu bare yoo xam ne da nga ko daal di solo di ko jox ñu di ko jàng di ko loolu du tey te loolu fëttewu xam boo demee ba liggéey bi agsi sëñ Tuubaa si loolu ci mhm. Cheikh Mamadou Mountakha jiital la ci mhm. def ko sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal bu yàgg lool mhm. barkeelu bii nag Tuubaa kanam da ko yëkkati jiital sëriñ bi ak waa Tuubaa ci kanam di ko barkeeloo ci bis bu mag ak boobu bu tedd boobu di bisu xasida ñu ñu ko limi juróomi nag ak ceeb bi xam naa ceeb bi ñu ko sëñ ba ren muy mel na ne dana doon boo xam ne dana bégloo bokki mosoo bi ndax sëñ bi bu ko jox da ko jox la gën ñëpp wax ndax moom moom li gën moo tax mu tànn ko indi ko jébbal leen ko ngir bëgg ko bàkkeeloo ci bis bi ngeen ñaanal baax a baax sëriñ Tuubaa nangul te bis bi ñu fas yéene nag ànd ko yéen lépp ci tàmbali ko ci mujj jekk nañ ci lépp yi ngir ànd ko ñu koy fàggu ñu moo xam ne fas nañ yéene lu mbooloo mi mën a toll Touba Ca Kanam mën leen a maatal loolu yi ñu koy fàggu ña ngi koy dajale suñu Babacar ña nga ci di dajale soo yàlla lépp loxo yi ñi nga xam ne ñooy yow liggéey bi kon fas nañ ko yéene ànd yéen ànd yëpp suñu kem kàttan Touba Ca Kanam képp ñu ngi fas yéene topp sa ginnaaw mm-hmm. ànd ak yow ci liggéey bi la sëñ Touba di liggéey yàlla na nga ci am ndam ndamul sëñ amiin amiin amiin amiin dem yàgg